yowmal qiyaam dafa am écran géant te Iblis mooy toog ca podium ba nag yor yàpp safara di def xutba comme ni ko imaam yi di defee xutba danañ ci ñëw dana leen wax xutba Iblis ba a bés penc yaqdumu qawmahu yowmal qiyaamati fa awradahumu naar bi'sal wirdul mawruud waaw bi'sal gis nga foofu wird ñëw na <laughs> bër bu set yaa ngi wér di yow ah, yetam lay yor di xutba waaw ah. ku am doole la ay ah, ko kattanal nag ah mu ne yow ma bés ba nga xamee ne tashhadu dana seede alayhim ci ñoom jaami yàlla yooyu muy nit ñi ak mbindeef yi alsinatuhum seen làmmeñ ya wa aydiyahum ak seen loxo ya waa arjulahum ak seen tànk ya bi ma ci sababu la nga xam ne kaanu nekkoon nañ yaamaluuna di ko jëfee ci àddina lépp loo daan jëfee dañuy taxaw di la seede kon kuy jëf jëfal loo xam ne mu ne yow ma isin ba si keroog yoo fii mu dana matal moom yàlla allahu buur yàlla diinahum seen diin seen pay gis nga diine fii feriwut fay de feriwul diine de seen tey mooy boo demee diinu ju Maodo ja ca fan laati noonu ya diinu diinu yu bokkut ya bii ci la bokk mu ne yow isin bésu keroog àllaaxira bés penc yoo fihimu dana matal sëkk allahu buur yàlla diinahum seen pay ban pay alxaq bay dëgg diinahumul xaq payu dëgg yàlla dana leen fay te lam leen di fay mooy dëgg ndax njuuj njaaj du ca am kum fay rek di nga xam ne moom nga mérité woo wa yaalamuuna ñu xam gis nga du foofu la um waaw gis nga lim ci teg moo lay wan ne loolu lay firi wa yaalamuuna ñu xam dëgg-dëgg na ñoom an ca lay dëgg liy mbir tey mbir li wér te wóor mooy huwa moom Euh, wa yaalamuuna ñu xam ne an lii mbir tey mbir an li wér te wóor mooy allahu buur yàlla huwa moom yàlla alxaqu mooy dëgg almubinu bu biir ba bu keroogee danañ xam ne yàlla dong ngay dëgg huwa alxaqu almubin allahu huwa alxaqu almubin lu ci topp um faali kañ ñu taxaw foofu buñ fa yeggee rek aaya bi nag man suux na léeg-léeg nga dégg ko ko jàng rek ndax arrangé mbiram waaw gaa yi gaa yi ustaas xaw a tuuti waaw léeg-léeg jàng rek ndax arrangé mbiram waaye aaya ji man suux na njàng mee fi nekk waaye àtte bi folleeku na lan moo folli atte bi fankixul ayaama minkum wasaalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yurnikum allahu min fadli wallahu waasiun alim moo ko folli te dina ñëw mu ngi ci kanamu fii mu ngi ci même saar bi fankihul ayaama minkum wasaalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yurnikum allahu min fadli wallahu waasiun alim moo tax fi suñ borom ni alxabisaatu ñi saay-saay ci góor ñi <laughs> ah? alxabisaatu ñi saay-saay tey jigéen lil xabisiina ñeel na góor ñu saay-saay ñi rek maanaam bul fekk jigéen ju yiw nga jox ko góor gu bandi <laughs> wal xabiisuuna saay-saay yu góor ya lil xabiisaati ñeel na saay-saay su jigéen si wa tayibaatu góor ñu baax ña nag li tayibiina ñi wa tayibaatu góor jigéen ñu baax na li tayibiina ñeel nañ góor ñu baax ñi wa tayibuuna góor ñu baax ñi li tayibaati ñeel na jigéen ñu baax ñi yàlla mën a wax hmm? mu ne ulaayika ndax ñii mubarra'uuna bi ma yaquluun dañoo dëñ ci li ñuy wax moo tax du foofu la um faali lahum moo ci topp moo la koy wan waaw ku tuub suñ borom ne lahum ñeel na leen maxfiratun njëggal wa rizqun ak soxna karimun ju baax risque bi soxna lay firi ah wala nga ne wala wala hum ñeel na leen mm-hmm. maxfiratun njëggal mm-hmm. wa risqun ak àjjana karimun ju tedd ëllëg mm-hmm. soxna su baax fii mooy àjjana di waaw ah waaw jeex na fii boo amee soxna su baax am nga àjjana jeex na moo tax ma ne la mooy mooy mooy soxna bu dee fii ci àddina mooy soxna bu dee ci àllaaxira mooy àjjana la ilaha illallah te xoolal zawjatu jannatu hmm, zawjatu jannatu mën nga leen tàqale zawjatu jannatu jeex na hmm. mu ne ulaayka lahum ñeel na leen maxfiratun njëggal wa risqun ak soxna karimun ju tedd lahum ñeel na leen maxfiratun njëggal wa risqun ak àjjana karimun ju tedd ëllëg yaa ayyuha alladina amanu ay yéen ñi gëm yàlla laa tadxulu bu leen dugg mukk buyutan benn néeg xayra buyutikum bu dut seen néegu bopp bi xatta tastaanisuuna lu dut ngeen yëgloo ngeen yëgloo ngeen yëgloo ngeen ut am ca ndigal nit Mansour am te néegam walla mu delloo ko rek nga ñëw ubbi ne yarax toog te joxu la ci ndigal walla dana ñëw ci kanam nga ñëw seet si maam yi ni mu yéwénee ci ataaya ak teraanga ak gerte gee ca aju asalaamualeykum mu ne waaleykum salaam nga ne pajax ca biir néeg ba dangay toog ba maam ne la bismillah waaye salaamaaleykum rek mbëkk rideau bi yaa nga ca bunt yaa nga ca digg ëtt bi diggi néeg ba kenn du ko def boo nee asalaamaaleykum bu ñu wa aleykum salaam da naan teg dañ ne la bismillah nga door a dugg parce que xëy na am na lu nekk ci néeg bi lu mu nga gis ko mu rangé loolu fat ko laa wax bismillah bu dee xëy na ku mel ni maam as jël na ay bagaasam ay turi yàllam ay xaatimam ay yooyu bëggul nga gis ko nga ñëw nag ne pajax ni i eh, ndeke yow yan ci affaire yi te duñ ca dañ koy wax de bu ñibbee nag fu mu dem ni wuu maa fekk maamaas muy dóor yoo xam ne loolu lañ ci bañ parce que awra la awra nga gis ko nga gis ko awra mooy lu nit ku bëggul nga xam ko nga xam ko mm-hmm. Mm-hmm. waaw moo tax mu ne laa tadxulu bu leen dugg yéen ñi gëm yàlla lay wax yaa ayyuha ladina amanu ay yéen ñi gëm yàlla kon ku gëmul yoonam newu ca laa tadxulu bu leen dugg mukk buyuutan benn néeg daf ko tanwin benn néeg ci néeg yi xayra buyutikum ludul seen néegu bopp xatta ludul na ngeen diisoo ak moom néeg ba islam rek a civilisé wa tusallimu nangeen ngeen nuyu nag ala ahliha ca waa kër ga ak waa néeg ba bu dee kër nuyul waa kër gi bu dee néeg nuyool wa tusallimu na ngeen nuyu ala ahliha ci ñooñu néeg ba suñ baram ne zaalikum gis nga lii ma leen digal xayrun moo gën foof lakum ñeel leen balaa ngeen di dugg ngeen yëgloo te nuyoo moo gën ñu ngi daaneel ah? laallakum ndax yéen mbesle mbesle lañ koy fire waaye mbesle waaye sene waa Dakar dégguñu ko mbesle mooy ndax ndax laal la laallakum ndax waaye mbesle moo gën a riche riche tazkuru na ngeen mën a fàttaliku am xel mu ne nag fa in lam tajidu bu fekkee ne fekkoo kenn fiihaa ci néeg ba ahadan kenn falaa tadxuluhaa bul dugg gis nga li islam baaxe mu ne boo fekkul kenn ci néeg ba bu mu tax nga ne am naa permission maam maam as benn lañ ñoo jaaxaan ci diggi lal bi yàlla ne bu ko def de loo nekk nekk benn maam as te maam as waxu duggal ci néeg bi boo demee xaar ma boo ñëwee boo fekkee néeg bi tëjuwul sax amoo droit dugg moom la yàlla di wax loo xaritoo xaritoo ak oustaz Sidi Mbay ku nekk xam na xaritoo ma moo maam Njaay ak Mansour Thiam yàlla ne lu ngeen xaritoo xaritoo xaritoo boo demee néeg maam Njaay te fekkoo fa kenn te maam Njaay waxu la woon ne boo ñëwee duggal mu ne taxawal ca bunt ba ba maam Njaay ñëw ne la duggal wala Mansour Thiam waaye ñëw rek jaaxaan ca digg lal ba ne ba maama as ñëw fekk ma fii ah? jeex na yortu chargeur ba branché di xaar baraada bi waaw maama si wax na dëgg de dañ ko koo def moo tax mu yegg foofu dañ ko koo def waaw yortu chargeur ba branché xaar baraada bi nag waaw maa la ko wax baadoolo baaxut waaw islam dafa bëggul ku baadoolo waaw moo tax mu ne fa in fa immédiatement boo yegsee ci néeg ba in lam tajit nag fekkoo fa kenn tajidu fekkoo kenn fii ha ca biir néeg ba rek xam nga doyoon na mu tegaat ca ahadan kenn kenn mu ne bum tax nag mukk fala tadxuluha bul dugg ca néeg ba hatta yu'zana lakum lulut ñu joxeef leen ndigal ndigal li avant lay doon wala après avant mooy boo demee même boo fekk kenn ci néeg ba duggal am nga ci duggal xaar ma aleykum salaam waaw waaw hmm. waaw la de tazakkaruna anamu laallakum ndax yéen waaw kañ tazkuruna jërëjëf du booy ba waaw borom daara moo tax noonu la laal laallakum ndax yéen na différence bi bariwul na mooy ngeen di ko fàttaliku tazakkaruna ngeen fàttaliku tazkuruna ngeen fàttaliku tazakkaruna ngeen di fàttali loolu rek mooy différence bi waaye alxuraan bu ci nekk maanaam bi boo ko duggalee fu mu duggul rek day changé wax na dëgg jërëjëf ba mu ne laallakum ndax yéen tazkuruna ngeen mën a fàttaliku am xelu fàttaliku fàttaliku bi xam nga lum ci jublu li ci mooy nga fàttaliku ne moom ngaa fekk ci néeg bi lu ñuy tere te Cerno Yaxya yi daf ma daan wax ne maamam daf ko daan wax ne ki gis mooy yàlla moo gën a sonn ki ko def mu ne ki gis mooy yàlla moo gën a sonn ki ko def ndax saa su ne mu ci sa xel mi saa yoo gisee waa ji it sa xel mi dem ci te amaan na waa ji yàlla jéggal na ko bàkkaar ba bu yàgg yow yaa ci des nag ndax yaa ko gis yaa ko fekkee ba ba ngay dee empreinte la du jóg mukk ci sa xol bi waaw ca ko mu ne yàlla ki ko fekkee moo gën a sonn ki ko def du jóg ci sa xel te saa yoo gisee waa ji bàkkaar boobu saa yoo ko gisee sa xel dem ci amaat na waa ji yàlla tuub na ko bu yàgg ba yàlla jéggal ko ko léegi nag yow yaa ci des Ah? waaw. waaw Cissé waaw sëñ Mor. fa in lam tajidu su fekkee ne fekku leen. fiiha ca néeg ba ahadan kenn mu ne falaa tadxulu bu leen dugg falaa tadxuluha bu leen dugg ca biir néeg ba xatta ba yuzana ñu digaleef lakum ñeel leen wa in su fekkee ne la waxeef na lakum ñeel leen yéen ñooñu taxaw ca bunti néeg ba te nuyoo irjiu wëññeekul dellul yàlla ne bu ca mer de fa ca saasa fam la ko waxee ne dellul irjiu dellu leen ey loolu ku ko fi defoon tey asalaamaaleykum waaleykum salaam kooku bokkar waaw ma ne wëññeekul buy ñibbi ne maam monsieur um faali shérif banaa ko banaa ko ah waaw lu xew dama ko nuyu dama nuyoo ba pare mu fay ma ne ma wëññeekul dàq ma loolu dootuma dem këram ba yow ma xiyam nag dootuma fa dem te gis nga li yàlla wax yàlla ne bu ko garaawal parce que da ko fekk mu jàpp xamoo ci ban la nekk xamoo ci yenn condition nga ko fekk mu ne la wëññeekul ngay dëgër bopp wala déet li góor ga waxoon mu ne rawati ko am séet waaw ah, mu ne xam nga ko am séet du sol tubéy daanaka bu la nee wëññeekul rek. waaw ah, góor gaa ma ko waxoon de wax dëgg yàlla te wax na dëgg de Serigne Cheikh dégg ci waxtaan yi mu ko wax nee na àjjana kenn du sol tubéy di amul tubéy tarax rek ni pakistanais yi di def moo am àjjana de àjjana tubéy amu fa du caaxaan àjjana tubéy amu fa de ñii jigéen ñi di woddoo la ñuy woddoo gis nga Pakistan moom dañ ko teel a xam ñoom di waajal àjjana te ñëwagul ah, waaw Serigne Cheikh ne na loo xam ne da cee dëkk kañ tubéy da koy yàggal Serigne Cheikh a ko wax de waaw ah, ah tubéy da koy yàggal bala ngay tekki tubéy ak yooyu lañ fa digge ci soxna tubéy da koy yàggal ah daa ah. na dëgg yonent bi nee na ki gën ki gën a néew daraja ajjana dina am fukki junniy soxna ak ñaar douze mille sayyidatuna Aïcha ne ko ndaw aye ba tas yonent bi ko contexte su àjjana ak ba àddina du benn mu ne ko ci kenn ngay aye sa jëmm figuré ci ñëpp looy def kenn ki mu mel ni ñëpp nga koy defandoor à la fois maamaas ne numérique la neex na dëgg xew-xew yi di am ay coupe du monde ak yile fu muy amee bi ci passé fu mu amee woon du Afrique du Sud kii euh, Russie bañ koy def Russie Sénégal buy football du yéen ñëpp a koy seetaan ñaata post téléviseur ñoo nekk senegal ñaata post téléviseur ñoo nekk ci àddina bi bu bit ba duggee ka ko dugal ñëpp a koy gisandoor à la minute à la minute yuuxoo ndoor yi yëpp nga dégg ko biir ndakaaru nga weddil ko yàlla mi bind jaam ñi ah nga weddil ko yàlla mi bind jaam ñi yàlla am na kàttan di yow itam àddina mooy moo dajjati yi ñu waroon na weddi yëpp àddinaa ko dajjati benn écran télévision bu tuuti nga teg ko sa néeg yëf yaa ngay xewee ci Afrique du Sud koñ bi yëpp télévision la réew mi yëpp télévision la àddina bi yëpp télévision la ku ku neexut rek da ngaa jàpp waaye ku jàpp rek bit ba carax ci Afrique du Sud ñëpp yëgandoor nañ ko à la minute yuuxoo yi benn la à la te ki réaliser loolu benn nit la boo xam ne gëmut sax yàlla astuma kon nag yàlla mi ko bind jeex na moo tax nañ wattandiku yàlla yàlla bari na doole te am na kàttan waaw amin fu ma toll waaw gis nga ko foofu maa ngi bu kii aaya bi daanoo rek ñu ñu wàcc nag xam naa ne du jeex li ci des bari na ñu bàyyi ba àjjuma bii di ñëw incha allah suñ borom nee na boo fekkul kenn ci biir néeg bi bu mu tax nga dugg mu ne suñ soo taxawee ci bunti néeg bi it nuyoo ñu ne la waaleykum salaam waxuñ la yegsil waaye ñu ne la ah fala tadxuluha xatta yuzana bul dugg de lu dul ñu joxeef la ndigal xatta ba yuzana ñu joxeef ndigal lakum ñeel leen wa in qiila su fekkee waxeef nañ leen lakum ñeel leen ne irjiu saawaay wëññeekul damaa jàpp yàlla ne bu ca am benn gàkk-gàkku xol fa ca saasa fam la ko waxee irjiu wëññeeku leen wëññeeku leen ñu ne ko lu tax mu ne huwa wëññeeku googu azka moo gën a dal xel azka moo gën a teey azka moo gën a baax lakum ñeel leen waaw ah, wàññeeku bi huwa moom wàññeeku bi ngay wàññeeku waaw <laughs> ah, alxuraan <laughs> ah, alxuraan dafa ba ngay wàññeeku naan waaw kañ bismillah maa ngay dem yàlla ne huwa moom wàññeeku boobule aska moo gën a baax aska moo gën a dal xel aska moo ëpp dignité aska moo ëpp jàmm lakkum ñeel ci nga dugg ñu ne ko lu tax mu ne ndax wallaahu buur yàlla bi ma ci sababu lépp lu ngeen di jëfee taamalu na ku ko xam la wala nga ne wallaahu buur yàlla taamalu na aji xam la bi maa ci lépp loo xam ne yéen koy jëf waaye man taamuwuma ci firi noonu ñàkk dégg wolof la rek ndax ki ma firil nii la daan firi muy alaaji saaxo góor gi Alaaji Saaxo ca sookoon bi ma demee sookoon de maa ngi laajte ma ne leen kuy tafsir ci jàkka ji léegi ñu ne ma kenn tafsiratu fi ndax bam mu gaañoo ba tey ku ñuy wax góor gi ci Thiam moo ko fi remplacé woon oustaz am te wératul ma ne leen ëpp naa def di Sokone ni mu doonee dëkk dëkku xam-xam kenn tafsiratul ci jumaa ji ëpp naa def waaye Alaaji Saaxo boobu nag moo ma tafsiral moo jur Abdou Karim Saaxo bi dëkkoon fii ci te bugguma am doom yi léegi mu nga taxu ca foire ba yàgg na. urbanisme bu mbokk dañ koy bañ ñoom cité urbanisme yi fi la dëkkoon la taxoon ñu tuddee ko cité bugguma am doom benn néeg ak benn saal bañ koy door a tabax looloo taxoon ñu tuddee ko cité bugguma am doom loolu rek la woon du dara nag benn néeg la ak benn saal te cour bu mag la am ñu jënd ñëpp modifié xam nga benn saal ak benn néeg mooy monsieur dam bu ngeen amee doom sax am problème. ma wax leen benn benn illa lu tax xanaa xamuñ xamoo ne bëgguñu sa doom ngay jonjoog sa soxna ci guddi gi mu nekk ci biir néeg bi donte liir la donte palental la donte day nelaw ñu ne lu tax ñu ne dafa am yëg-yëg te xet gi da koy xeeñ day wàññi ci moom leer <coughs> <coughs> ah waaw ah day yëg day yëg te xet gi da koy xeeñ waaw ah, xet gi da koy xet gi da koy xeeñ mag ñi man xamoon naa ci koo xam ne boo boo defee lu jaaduwul maanaam boo njaaloo boo yegg si rek xet gi da koy xeeñ koy xeeñ xetu njaaloo dafa am ak xetu soxna bu dee sa soxna xet gi day parfumé wu bu dee xetu njaalo nag day xësiw xunn xunn xunn xunn ko médd maa la ko wax bu dee liir bi nag bu koy xeeñ xetu parfon lay doon waaye dañ day xam ban parfum la parfon bii la walla ci ndey ak bàyyi la jóge yuy sëy te daf koy wàññi moo man mag daan ut néeg beneen boo wala tërali xale yi fa fële ñoom ñu dëkk tëdd fële ba ci tubaab yi tubaab yi sax di ñuy saay saay saay saay bokk ñoog seeni doom néeg oh. waaw aha Serigne Cheikh la xawlo ah jeex na boo ko yoree génneel ñu teg fii rek man kañ lu ma la wax nee naa la kenn du ko widdi bi bés pénc xanaa nga ñàkk caa yegg rek waaw ñàkk caa yegg rek mën nga maa boo ci ah! la ko wax waaw ne ah, yi am léegi nag ak moyens yi ni mu ñàkkee léegi c'est très difficile yombut surtout moyens yi waaw waaye beneen yoon dinaa leen wax ni ngeen di def comme loolu <laughs> waaw beneen yoon kay. ah beneen yoon du tey de à suivre la boobu <laughs> boo ko mënee génne rek génne ko xaw ma woon ne Serigne Cheikh wax na ci sax Serigne seex lu ne wax na ko loo xalaat ci kaw suuf rek wax na ko waaw moo tax yal nañu yàlla dafa sutura wallaahu bur yàlla bi maa ca la nga xam ne yaa taamalu na yéen a koy jëfee. alimun ku ko xam la du foofu la yemoon déedéet waaw foofu la waaw kañ du foofu la waaw kañ wallahu buur yàlla gén naa ni man buur yàlla bi maa ci yi nga xam ne sababu yi nga xam ne taamaluuna yéen a ngi koy jëfee alimun ku ko xam la wala nga ne wallaahu géñ naa buur yàlla xabiirun aji ana fan la alimun mooy xamaakoon bi aji xam la bi maa ca la nga xam ne taamalu na yéen a ngi koy jëfee bu la ci neexee nga firee ko noonu nga jëli xabar nga door indi mubta bi mubtada bi mm-hmm. dégg nga wax mm-hmm. kañ waaye nag boo bëggee lu yomb rek da nga naan wallaahu buur yàlla ñàkk dégg wolof rek wallaahu buur yàlla bimaa ca la nga xam ne sabab ya nga xam ne taamaluuna yéen a ngi koy jëfee alimun ku ko xam la moom yàlla wala nga leen wallaahu buur yàlla alimun aji xam la bi ya nga xam ne taamaluuna yéen a ngi koy jëfee kon koy jëf-jëfal lu baax ndax yàlla xam na li ngay jëf waaw ñu taxaw foofu moo gën a neex Hmm? la ca topp ngeen di téyal ma ko nag bu ñëwaatee àjjuma laysa aleykum junahun an tadxulu buyutan gayra buyutikum gayra maskunatin fiha mataun lakum oh, hmm? waaw xaaral wala ngeen may ma tuuti rek ñe juróomi minute rek du foofu la ah? du foofu la mu ne laysa déet aleykum di leen ñeel laysa déet aleykum di nekk di leen ñeel junaaxun benn bakkar an be tadxulu ngeen dugg buyuutan néeg bu mën a doon xayra maskuunatin fekk du seen néeg bu ngeen dëkk fiiha nekk na ca néeg booba ngeen dugg te dëkku leen fa mataa un ay bagaas mataa un ay bagaas lakum ñeel leen yàlla ne néeg boo xam ne nag ay bagage rek ka fa ne jarul nuyoo loolu rek lay wax nit doo def ay ceeb saakoy ceeb ak saakoy dugub ak saakoy loolu yàlla nee na foofa nag boo fay dugg jarut yëglu jarut jarut nuyoo bu fekkee yaa ko moom nag waaw ndax boo ko moomul te dugg fa dañ lay jaawal sàcc waaw xayra maskunatin fiha mataaun lu ci topp wallaahu waaw la lakum mooy bagage yoo xam ne yéen a ko moom mataaun ay bagage lakum yoo xam ne ñeel na leen yéen a ko moom ñu ne ko lu tax mu ne wallaahu buur yàlla yàlla mu xam na maa lépp loo xam ne tubduuna yéen a ngi koy feeñal li ngeen di feeñal yàlla ne xam naa ko wamaa ak lépp loo xam ne taktumuuna na a ngi koy nëbb yàlla ni lu ngeen di feeñal xam naa ko lu ngeen di nëbb xam naa ko kon jarul nëbb ah lu ci topp xul waxal bu firiwul waxal de xul neel yow yonent bi xul neel neel ak waxal lii différence bi su ma la nee bay di waxal lu la neex ngay wax waaye su ma la nee bay di neel da nga shérif nee na suba am na conférence suba am na conférence Pikine Pikine trois heures trois heures la ma wax rek lay wax su fekkoon ne yonent bi xul mooy ne xul waxal kon alxuraan waxu yonent bi lay doon waaye xul moy neel kon waxu yàlla la yàllaa koy wax muy wax loolu lay différence bi wolof dafa riche moo ta mu ne ko xul neel yow sallallahu alayhi wa sallam lil muminina ñeel jullit ñi yaxut yu góor yi yaxudu na ñuy damm min absaarihim ci seen gis yi waxul xool de gis aha seen gis yi innaha laa taamal absaar walakin taamal qulubu allati fi sudur nawwir basaira abdika almutadallili boobu la Maodo jël basira mooy fii xol xool fii nag mooy nazaratu waaye bii moom mooy basira boobu la yàlla wax nag xool ko te bu ko gis dégg ngeen wax bi xoolal ndaw si bu la daganut waaye bu ko gis lu jafe la nag moo tax mu ne waxal jullit ñu góor ñi ñu damm seen gis yi ci jullit ñu jigéen ñi xul lil xul neel lil muminina jullit yu góor yi yaxuddu nañu damm min absaarihim seeni gis ci jullit yu góor jigéen ñi wa yaxfazu moo ci topp nañuy wattu wattu furujahum seen pëy yi ba buñ ci moy yàlla mu ne góor ñi téyel leen ma seen bopp ba bu leen njaalo ji loolu rek lay firi xam nga njaalo lu koy indi gis soo xoolee ndaw si ba gis ko muy romb ngay tourné muy romb ngay tourné muy romb ngay tourné muy romb ngay tourné fooy mujj jóg madame pardon foo dëkk adresse commencé seeti am wéet am jaxasoo am jeex na na ko woykat ba waxee fa nazaratun fa tisaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaaun fa jonjoo maa la ko wax mënoo dara waaw ah, moo tax li yàlla wax nañ ko def rek waaye bu la ma góor ga waxoon ci kaw lax Chérif dimbale ma ma ne ko lu wax mu ne ma marché laay jaayee jigéen ñii mënumaa gëmm su ma gëmmee ñu sàcc sama marchandise mi wala oto firme damay xulli ma ne ko xullil yaag yàlla waaw xullil mumini waaw yaxfad wal yax wal yax wal yax ah wa yaxfazu nañuy wattu furujahum seen pëy yi ba buñ ca mooy yàlla zalika loolu la zalika yëgal ne wattu sa bopp ba doo yàlla azka moo gën a yiw moo gën a yiw moo gën a sell lahum ñeel leen yéen góor ñi inna allaha naka buur yàlla xabiirun ku dëñ kumpa la ku dëñ kumpa la bi ma ca la nga xam ne yasnauna yéen a ngi koy yelu li sa xol bi di xaatar ci ndaw si yàlla ne xam naa ko mooy mooy yes na un mhm. li sa xol di xaatar te ndaw si yaa ngi koy xool wala ndaw si dem na sax sa xol baa ngi koy xaatar yàlla ne yëgal ni man yàlla xam naa ko ah waaw yàlla ne man yàlla xam naa ko ñu taxaw foofu bon ba suba waaye daal lim li ma bëgg a wax mooy yàlla ku garaaw la bunt yëpp la tëb la tëj bunt yëpp la tëj gisal baat bi mu indi rek zalika toog bañ a yàlla azka moo gën a la azka moo gën a baax azka moo gën a yiw lahum ñeel leen yéen góor ñi ndax ñu ne ko lan mu ne inna allaha inna ca dëgg dëgg dëgg boo koy jël par baat inna ca dëgg dëgg dëgg inna lii mbir tey mbir inna li wér te wóor mooy allahu buur yàlla xabiirun ku deñ kumpa la bi maa ca la nga xam ne yasnauna yéen a ngi koy ruuma ca suuf te génn génnagul yàlla ko doy waar la dañ kumpa léeg nga ne dégg ñu ne nit ku dañ kumpa la ah, ah. bal ma bal ma ma tëj ko man damaa bari wax su ma ko tëjut duñ fi jóg nit da nit kumpa dafa bañ kumpa nit danga naan bay di yàpp naa ko bay di ku bañ kumpa la dara du ko rëcc Chérif Ibrahima ku bañ kumpa la lu ne ku mu jóg waaye dañ kumpa kenn doo nga ko def mooy suñu borom bañ kumpa mooy ngay jóg di gëstu loo du xam be faw dañ kumpa nag mooy dara mun du la échappé lu xew xam nga ko loolu yàlla rekk ko am moo tax mu ne wallahu xabirun bi ma yasnauna li ngeen di ruumandaat ca suuf te génnagul sax mu ne man yàlla xam naa ko li ngay xaatar ca suuf te ndey xamu ko bàyyi xamu ko jabar xamu ko doom xamu ko kenn xamu ko yàlla ne man yàlla sama nopp bi forox na forox goo xam ne sax looloo may tànqal xaatar yooyu sax mu ngi may tànqal man yàlla moo tax bu ci yàlla doon topp nit àddina tukki léeg nga dégg kuy xalam ci suuf loo xam ne yooyu bu génnoon ah bàkkaar bu ko bu yàlla bu noonu bàkkaaru xel am na kon ñépp dem safara ah waaw njawar maa la ko wax day xeeñ nag bàkkaar day xeeñ waaw kañ loolu laa bëggoon nga xam ko day xeeñ waaw Cerno Yaxya li mos na ma ko wax mu ne ma baaba ma ne ko mu ne ma nit ma yàlla bu mu def bu taxawee fi ma xam ko ndax xet gi daf may xëy mu ne te xet yi bokkut mu ne xetu fen xetu njaalo xetu naan sàngara mu ne xet yépp bokkul benn bokkul ak moromam benn bokkul ak moromam benn bokkul ak moromam nañ bàyyi yàlla xel rek gis nga wax ji wax ji yàlla rek a fi ne ni ñu ormal ñëpp te jël yàlla jox ko suñ bopp rek te muy dëgg ci ñun nag ku ko def rek yàlla téyel la boppam yal ñu yàlla téyel boppam yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla làq fa yàq yeggut yal nañu yàlla aaral boppam yàlla may ñu xéewal yu yaatu nag ak wërsëg yu yaatu ci barke ñii toog ndax ñii toog xaadima jaxate kala mooy seen maam